Pentecôte ñu ngi koy célébrer c'est la communauté catholique en général mooy célébrer Pentecôte euh, pourquoi euh, Sénégal cosaan la wala lan lu tax ñu choisir foofu pour euh, Popenguine waaw loolu histoire la histoire bi buñ koy nettali dañu naan dafa am en 1900 1885 mhm. donc père Joseph Strub moom moo nekkoon benn ndaw bu ñu bu monseigneur Riel yóbbante woon mhm. pour mu ñëw Popenguine mu dox si ba secteur boobu ba foofu xool après ñu teg ci euh, ñetti at monseigneur Picard daa ñëw mhm. euh, dox ba egsi foofu seen tund bi parce que Popenguine ci tund la nekk mu am yëg-yëg yëg-yëg boobu nag xam naa leer la ci la ci la samp pèlerinage bi foofu mhm. benn at bi ci tegu mu am le premier pèlerinage foofu à Poponguine. voilà en 1800 par waaw par le père euh, en 1888. le 21 avril. Mmh. donc ci la am la première marche. Mhm. amoon 200 personnes. Mhm. ñu def marche bi. ñu dawal ay at 1981 au Sénégal le défunt Pierre Faye nekk l'initiateur de la marche. Mhm. donc marche pèlerinage mu ngi commencé. 1981 1981 ci la gars yi dox Dakar. muy évoluer muy évoluer ba ñu nekk 2024 euh, comme ni ma ko doon waxee sànq dafa am ay coppite yu am. Mhm. dafa amoon ay foyer de marche bi ñu saytoo ñu gis ne que foyer de marche yi au de dix ans euh, egg nañu benn niveau d'organisation. il faut mu am changement. parce que gàllankoor yi commencé woon na bëri. foyer de marche mooy fu nekk nit jóge fi waaw maanaam dafa amoon. ñuy daje Dakar euh, foyer de marche bu Dakar. waaw xam ne day def mhm. dakaar ndawu dakaar yi waa mhm. Ziguinchor ñëw ak waa Kolda mhm. ànd ak Dakar dox mhm. mu am foyer Saint-Louis ak euh, ak euh, Thiès ñu ànd muy deuxième foyer mu am Mbour Sine Petite Côte mu nekk beneen foyer tamit ak Kaolack ànd ak Tambacounda ànd ak Kolda donc ñeenti foyer yooyu ñoom ñooy def marché bi ku ci nekk yaa ngi def 40 kilomètres pour utali Popenguine donc takku bi lim di dem ba ay vingt cinq mille chaque année muy gën a yokk parce que gis nañ ne que population bi et les jeunes donc mu nekk un intérêt particulier pour la marche mais marché bi dafa nekk benn euh, benn structure ci organisation bu mag ok voilà donc le comité d'organisation moom mooy coiffé marché bi mm-hmm. léegi soppite bi ren le changement c'est que c'est l'organisation se fait en doyenné maanaam doyenné boo gisee dafa am diocèse diocèse de Dakar dafa am doyen nit. Mm-hmm. doyen ni Plateau doyen ni Grand Dakar doyen ni euh, euh, euh, nu mu tuddati Géejawaay doyen ni Sine donc doyen yooyu bu ci nekk da nga am ay paroisse su ma jëlee exemple doyen Grand Dakar doyen mooy lan. doyen mooy c'est naka lañ koy waxee maanaam bu ñu koy def découpage. c'est un découpage. Euh, ecclésiastique okay, comme découpage administratif d'accord donc découpage boobu mooy indi mettons dañuy dajale. ci benn rayon. ñu ne xanaa daaw la woon. ñun dañuy def ak ñoom ànd ñoom chaque dañuy dajale ci benn rayon ay paroisse mm-hmm. bu ñu jëlee Grand Dakar. Mm-hmm. dafa dajale église u Saint Sainte-Thérèse. Mm-hmm. mu dajale martyr de l'Ouganda. mu dajale Saint-Pierre de Baobab. donc mu nekk doyenné. donc boo limee di nga juum. donc ñooñu ñooy organiser marché bi. parce que marché bi dañu gisoon ne que dafa amoon ay gàllankoor ci wàllum lekk bi ak ci wàllum transport. Hmm. ndaw yi dañuy pare pèlerinage war a ñibbi. Hmm. am problème transport di topp Popenguine ba une heure du matin. Hmm. donc loolu mu nekk loo xam ne. bi ko suñu kilifa yi gisee ñu saytu ko. pour indi ci correction. moo tax ñu ne léegi doy na yéen a yore responsabilité marché bi mais loolu yëpp c'est centralisé par la direction des œuvres maanaam direction des œuvres bi nga xam ne euh, directeur bi mooy président comité d'organisation. ok son adjoint moom mooy saytu lépp mooy responsable lu marché bi ak lépp lu jëm ci wàllu organisation au niveau des doyens. Hmm. donc lépp luy jëm ci wàllu euh, ndimbal ak lépp lu jëm ci wàllu ni mbir yi war a tëddee ci foofu la ñuy jaar. direction des oeuvres direction des foofu lay jaar. Hmm. donc loolu mooy organisation bi nga xam ne coppite bi beneen bi mooy diocèse de Thiès cette année moom mooy nekk à l'honneur ah d'accord avec monseigneur euh, André Guèye. Hmm. yi nga xam ne moo coiffé Thiès Diourbel mm-hmm. donc ñooñu ñëpp ñu ngi préparé wu pour euh, cent trente sixième édition bi ñu mun ko euh, vraiment mu nekk réussite c'est-à-dire ñoom ñooy chaque année dafa am diocèse boo xam ne bay day jël day organiser maanaam yow yaa yore lépp lu jëm ci wàllu liturgie parce que pèlerinage bi base u pèlerinage bi ak quintessence bi c'est la liturgie mm-hmm. maanaam dem pour ñaan la mm-hmm. pèlerinage dañ koy faral di euh, euh, di ko méngaleeg ay feet ak yooyu am na ci wàll parce que bés boo xam ne euh, bésu Mariama la. dañ ci war a tagas Mariama dañ ko ci war a sant dañ ko ci war a. Hmm. gërëm ndax fu nit daje jàmm rek moo fa am. Hmm. donc loolu benn côté la mais bi ci gën a am solo te bi ñu ci woo pèlerins yi ak fidèles yi mooy les les les les célébrations. maanaam lépp lu jëm ci wàllu sell bi. Mhm. parce que kuy ñëw pèlerinage da ngay ñëw da ngay préparer waajal sa bopp. Mhm. yeesal sa bopp sa mhm. digganteeg sa borom. boo fa ñëwee nga am taxawaay bu bu sell te loolu yaa ngi koy mën a amee ci boo ñëwee nga dox sa parcours du pèlerin. lan mooy parcours bi. parcours du pèlerin dafay tàmbali ci confession. confession mooy li nga xam ne euh, balaa ngay def balaa ngay euh, maanaam. dégg wolof li mu naan diggante sol ak sumeeku. ak sumeeku yaa nga def yaramu nen. nga euh, jébbal sa bopp sa borom. baalu àq. Mm-hmm. ndax dañ naan balaa ngay mën a euh, présenter sa offrande yàlla. il faut nga xool sa morom. Mm-hmm. maanaam biraama. Mm-hmm. foog ma baalu ko àq su ma ko tooñ. waaw bu ko defee nag boo paree ci confession bi. nga dem defi mees. mees bi nga xam ne ci ngay ñaan yàlla mu wàcceel la grâce mhm. mu bal la say bàkkaar mhm. soo paree loolu nga dem defi sa adoration loolu ci parcours du pèlerin bi la mhm. après adoration bi nga ñëw ci chapelet maanaam wérd bi saa lii ñu bëri ko wérd bi wérd bi am na solo trop parce que booy xool sax ci célébration yi euh, li ci bëri bëri na ay chapelet am na ay mees ndax mees yi day tàmbale la samedi ak dimanche ak euh, lundi bi mooy célébration officielle bi nga xam ne euh, kilifa yi ci la ñu ñëw délégation waaw lundi délégation cérémonie officielle lundi cérémonie officielle bi. ci nag moom cette TV xaar bi yëpp la ah, leen xaar. voilà di xaar di ngeen euh, nekk ci ay conditions yoo xam ne di ngeen mën a def seen liggéey correctement. Mm. donc bu loolu weesoo. Mm. Euh, ñu nekk ci chapelet bi bu ñu paree chapelet bi nag dernière partie mooy bi ma doon wax sànq. qui qui constitue la la la fraternité voilà maanaam démarche de de de solidarité. Mhm. Euh, xaritoo yi ngay dajale foofu. ngeen waxtaan ngeen. partager seen souffrance ku nekk ñaanal sa morom. loolu la ñuy xaar ci euh, pèlerin boo xam ne ak fépp foo mën a jógee parce que pèlerinage u Sénégal. Mhm. Euh, depuis ba léegi. jéggi na frontière Sénégal Sénégal waaw. c'est un pèlerinage international. Mm-hmm. Mm-hmm. nous avons à côté les délégations nos voisins les mm-hmm. les nos voisins maliens. nos voisins bissau guinéens gambiens. burkinabé ivoirien donc ñooñu ñëpp ñu ngi porté intérêt. si pèlerinage bi. mu doon loo xam ne doyen mu ko doon sànq. am na un un un volet économique am na un volet culturel. am na un volet social yooyu yëpp mu ngi ci biir. te loolu euh, kilifa diine yi ak état. nouvelles autorités yi ñoo ko war a saytu téye ko xam ne que lii richesse la. bien mhm. sûr bien sûr. donc lu ñëpp bokk dañ ko war a aar bu baax. Mhm. surtout lu jëm ci wàllu diine. Mhm. et que nit ñi dañuy bàyyeekoo ci ay euh, dëkk. yu bëri am yaakaar ci bu ñu ñëwee foofu seen aaju dana faju kon foofu dafa war a nekk bërëb bu sell sell sell.